ñu bari dinañ ma dinañu jaaxle buñ ma gisee ci tribune bi mais képp ku bëgg Sénégal gëm dëgg bëgg sa réew warul jaaxle bu gisee ab doomi réew taxaw fi nga xam ne foofu la war a taxawee bu ko réewam laajee ndax ndax li Macky Sall di nam ci réew mi muy te mu tàmbale ko depuis élection législative yi continuer ko ci inscription yi te nam ko àggale ci parrainage bu sottee beneen Sénégal la ñuy nekk ndax mu ngi delloo réew mi ci wàllum démocratie ci ginnaaw ci fànn yu bëri ci fànn yu bëri sénégalais yi toog di seetaan mais damay laaj di attirer attention sénégalais yi ak ñeneen ñi ana armée sénégalaise lu muy wut Gambie actuellement dañu ne dañuy dem jàppale Gambien yi ndax yaaya Jammeh dafa doon wuruj ay élection jaarale ko wul yoon te pourtant élection Yaya Jammeh yi bi Yaya Jammeh defoon ak moo nuroog li Macky Sall di def actuellement ak moo nuroog li Macky Sall di def actuellement ndax da ngeen fàttaliku dafa am benn jamono mu jàpp opposition yëpp moom Yaya Jammeh tëj ci kaso mooy ñoom Ousseynou Dabo ñooñu. Sénégal fu nous Amna parti opposition bu ñu nous ngir ñu éliminer leen élection Nous ak Yaya match ñu nous gis que système parrainage bu non seulement li président Pape Diop mais que bu conseil constitutionnel jotee euh, parrainage yeeg signature nous ñu ne Samba mi kat baa signé parce que ci dëkk bi ñu bëri mënuñu signé de su ñu ne baa wala bismillah wala Allah wala neneen wala def croix ñoñu ñëpp dañuy né ñi ay signature tàmpale lañu parce que signature yi dañu ro parce qu'il y aura sur des listes ay milliers de sénégalais yu ro signature. Nous avons de dañu des bureau fabriqué ay signature signature valide Dans le Sénégal nous vérifions nous signé bas pour signé Allah ou signé Sen croix de Sénion. donc il faut éliminer les candidature valable troisièmement nous avons nuroog

Il le processus électoral de 7 faut pour nous gagnions comme Il on. Le processus électoral de 7 il faut que nous gagnions d'orgo 1-0. Et pourtant, qui nous a ramené de faire des la démocratie, Djaral Noko, envoyé sous nos soldats, qui viennent de pour défendre la démocratie. il faut que qui gagnions la démocratie, faut que le gagne en Afrique ndax ku bëgg manifester ñu dal sa kaw ku bëgg a wax sa droit amoo foo koy waxee parce que même les médias publics ont été complètement ligotés parce que l'argent et les sociétés nationales comme ce qui se passe honteusement à la poste sert à recruter maanaam jënd ay opposants dañuy gis ni nit mu ngi ànd ak diw wala nekk ci liste électorale sangam wala le ci qui and ak entourage bu mu gën nous jege ñu dem jox ko contrat ci poste wala le loolu mo xew Thiès di xew Dakar di xew partout alors un tel autocrate peut-il encore laisser notre armée nationale en Gambie au prétexte de défendre la démocratie C'est une question qui se pose et que l'on doit se poser tous. Et pour terminer, Limo Bogawa mooy li croix wax legui dañu yakaron ni réew mi fu mu toll mag kii am lu ko doy lu dul toppatoo question électorale ce qu'est-ce? ndax réew mi dafa tollu fo xamné ne yakaron yaakaaroon nañu dina fa wessu fan la tollu enseignants yëpp ngi grève des centaines des milliers d'élèves ay junni junni élèves amuñu année scolaire bu jaar mais loolu du problème am ay junni junni sénégalais parce que médecin yi dañu mer ñu ngi ci grève mais loolu du problème am ñu ngi faagaagal ay junni ay ay xale plutôt yu bëri ba police sax admettre ne dañuy def plan spécial mais kooku du problème mu Macky Sall sénégalais yaa ngi mais xalé yi étudiants bac plus 5 yu ci marché mais lolu du problème Macky Sall lan problème am lan problème am ministre de l'Intérieur c'est quelques experts en tripatouillage Nous ne naka pas ba gagner élection rek problème au président Macky Sall alors que sénégalais ont situation yu donc pour terminer je dis sénégalais nous du question PDS bien que e des dafa et au PDS Nous question AFP que même les gens de l'APR qui étaient hier au 23 juin à l'Assemblée nationale nous le 23 juin 2011 à l'Assemblée nationale Nous xeexoon tous les démocrates qui sont autour de Macky Sall qui disent qu'ils ont résisté c'est le moment comme dit le président comme dit Mamadou Diop de Croix, de dire qu'on n'était pas pour Macky Sall, qu'on n'est pas pour X, qu'on n'est pas pour, qu'on est pour le Sénégal et indestructible, qui est au de tous. Sur l'olu, nous dans un pays africain qui est Moi, élection yi reportée parce que président de la république bu koy reporté d'année en année de 2017 ba léegi mom mo Sénégal yalla ñu ci